muñ leen victoire bee ngi ñëw waxtu bi nga xamee ne seeni mbokk jullit si penku ak soow ñoo ngi nekk di foo ak caaxaan ak football yéen ngeen nekk ñoo xam ne da di jàmbaarloo ak noon bi gën a rëy si noonu jullit ñi te moom mooy juif ngeen won ngeen wone njàmbaarte boo xam ne bu yéeme la ak fit ak góorgóorlu ak ixlaas boo xam ne bu dëgër la si li ñu njortu si yéen borom bi du leen seetaan métit mënta ñàkk ndaxte lii mooy guerre waaye guerre la boo xam ne bu yàlla gërëm la subhaanahu wa taala kon muñ leen nga xam ne waxtu la boo xam ne bu jafe la waaye incha allah lii ñëw si ginnaawam lépp xewal la ak donkaasi gi bi nga xamee ne seeni mbokk jullit dañ leen seetaan ñu bàyyi leen ak noon yi noon yi mànkoo nekk benn di leen xeex ngeen taxaw dëgër këcc ci jàmbarlu ak ñoom gis ngeen victoire yi la defal subhanahu wa gis ngeen taxawaay bi nga xam ne borom bi defal na leen si tawfiq ba ngeen mun jàmbaarlu ak noon boo xam ne moo gën a yées si li bind mais alhamdulillah ba léegi nekk ngeen ñoo xam ne yéena ngi am victoire si kawam nekk ngeen ñoo xam ne yéena ngi ko tiital yéena ko ñàkk yéena ngi ko xañ lii nga xam ne moom mooy nelaw waaye itam dafa jaaxle xamul lu muy def moom ak ay mbokkam moom ak ay ñi koy dimbali ak ñi koy taxaw ak ñi koy jàppale naam coono yi métti na xiif bi tar na xale yi ak mag ñi ak góor ñi ak jigéen ñi ñépp sonn nañ seddaay bi tar na ñàkk bi tar na faatule bi bari na lool li ngeen pert ci ay mbokk ak ay alal ak ay kër ak a bari waaye bi iznillah borom bi du neenal coono yi borom bi du neenal coono yi bi iznillah taala di ngeen kontaan di ngeen bëgg di ngeen raw ñu baree bari si seen waa jamono ndaxte da ngeen sacrifier heure boo xam ne ñoom ñoo ngi fo da ngeen góorgóorlu heure boo xam ne ñoom ñoo ngi saggan da ngeen taxaw temm dëgër kër ci waxtu boo xam ne ñëpp ñoo ngi ragal ñoo ngi sori juif yi ak américains yi ak ñu mel ni ñoom kon alhamdulillah si tawfiq bi leen borom bi defal na ngeen xam ne ki leen defal tawfiq bii si tàmbale bi du leen seytaan si mujjantal bi muñ te nga xam ne victoire bi moo